mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Seexul Xadim ñaanal Seex Muhammadu Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ku wér di leen nuyu di leen ziar baax di àndaat ak yéen seen mbokkum taalibi Abdou Lahad Aw ci waxtaanu juróomi minitu bis bu jot ci weeru safar gi nu ne ngir waaj bisu Seexul Xadim bis bi mu ni kaay leen santale ma ci yàlla mu tombeek bi su fukki fan yaak juróom-ñett muy xarajtu yowma sabti saamina asar waaye li xidmatil muxtaar yi fii sëri safar nga xam ni maa ngi tolloon démb ci waxtaan wi ma doon waxtaane seexul xadiim fa nga xamante ni mooy mbàkke kajoor ba nga xamante ni yoonu murit sosu na seexul xadiim tàmbalee yare nga xam ni moom jataayam ku fa mus a nekk rek am nga ci loo ne ñenn ñaa nga féetewoo njàng ma ñi seen xel neexut mu faree farale leen ci liggéey ba ndax xam ni nit ki xelam mën naa bañ a neex waaye nga mën a def ci xolam yàlla ay ciiram nangu yàlla te du tee mu xam lu mën a jaamoo suñu borom ndax la alquran waxoon ni faqra'u ma tayassara min alquran jàngal li jàppandi ci yow rek ci alquranu karim sëriqul xadim noonu la nekkee Mbàkke Kajoor ak mag ñi di leen defar nga xamante ni ku mu defar rek ba yabal la ci dëkk ku la gis xemeem la bëgg a mel ni yow nga ne nga laaj koo xam ni nga mel kan moo la ko melal mun la Serigne Touba kooku jóg fekk si la ànd ak yow dem ci Serigne tubaa mu defar la nga xam ne noonu la nekkee woon Mbàkke Kajoor nekk ci jaamu yàlla nekk wéetal sunu borom nekk ko xam ne fu mu musa toog rek alxuraan a nekk wéttalam waaye tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk wéttalam moom Seexul Xadiim ci booba jamono nga xam ni yoonu murit tumuraanke woon na lool ci saayir ndax booba mbooloo ma bareegut waaye yoon wi nag bi ñu amee ak jàmbaar bu ca dugg jox boppam sëñ tubaa nekk ñeent fukkeelu nit ku jox boppam sëñ Touba tudd si Cheikh ma Fall joxe boppam sëñ Touba ca Mbàkke Kajoor ca ñaar fukki fani nga xamante ni bi mu joxee boppam sëñ Touba nag moo nekk koo xam ni moo wane naka la toppee sëñ Touba wa jaa rajulu min aqsal madinati yasan xaala yaa qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun yàlla nee na am na jaam boo xam ne day ñëw ci dëkk ngi leen kaay ma leen na ngeen def ba gindiku seen digganteeg seen boroom kooku nag yàlla nee na ña am texe mooy ña ko topp ba mu gindi leen mooy jëmmi maam Cheikh ma Fall moo wane naka la ñuy àndeeg sëñ Touba wan nu naka la ñuy toppee Seexul Xaddim ndax bi mu joxee boppam Serigne Touba Xaadim Rasul ñu ko man sama itte lenn képp la mooy sama alaaxira jàkk ak àgg suñu borom innama hamidullahu wa daaral axira sama itte mooy àgg ci yàlla man Cheikh Ibra ak àllaaxira sama lépp jag fa seen Tuubaa xamal ko ni ko man it sama pas-pas ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toll na ci foo xam ni su ma si géwoon xool biddiw mu leer ma ni biddiw bii ma jàkkaarloo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam yi di yi dinaa xool biddiw boobu di ci jaamu suñu borom di ci defi tafakkur ba am tur xaadim rasuul ñoom ñaar seen pas-pas ñu jaayante ko ànd ngir liggéey lislaam moom Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Ibra nga xam te ni maam Cheikh Raye Fall wane naka la ñu ànd ak sëñ Touba jàngale li su alxuraan wax ci soota hujuraat ni sab kàddu bu mu gën a fare kaw sa kàddu kilifa booba sëriñ bi daan nañ ko woo di saalalu aw turam Cheikh Ibrahima Fall bu ma ko déggati képp ki woo sëñ tubaa dikkal ba ci noppam nga dee ko li nga bëgg a wax waaye bu kenn yëkkati sa kàddu mu gën a kawe kàddu sëriñ Touba yaa ayyuha llazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata ahbaalukum wa antum laa tash'uruun nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala digaloon na saxaaba yi ndax ñoo ñoo nekkoon royukaay mag ñi àndoon Sëriñ Tuubaa saxaaba yi ñoo nekkoon seen royukaay ci diine diineeg lislaam nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ñoo xam ni ñoo taxoon ku gis Sëriñ Tuubaa wekk ko ndax defar na ñoo xam ne ku leen gis xeemem leen ba bëgg yàlla bëgg rasulillahi Cheikh Fall ñëw xam ne ni Sëriñ du koy toog kenn di dend ak moom te yitu woowu la waaye mooy koo xam ne bu bu nekkee ci biirum keesam ku koo yittewoo da nga yëglu boo yëgloo mu deel agsi nga agsi waaye bu nekkee ci ak ngàntam nga bàyyi ko ndax li mu tegoo diggante moom borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne organisation Mbàkke Kajoor bu tegoo ci yoon Cheikh Rahma Fall moo dikk wane ni kii ñii lañ koy jàppee ñii la ñuy àndeek moom kon kooku mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul noonee la nekkee Mbàkke Kajoor ak seexam yi nga xam ni ñoom ñëpp tuddoo naa leen ca vidéo bu njëkk ba ànd ak ñoom di liggéeyal yàlla ak rasulillahi saa salaam waaye noonee nga xam ne nag noonu doon defaree tundu kajoor waa bawol di ko dégg di ñëw waa siin di ko dégg di ñëw waa saalum di ko dégg di ñëw ñëpp di ko dégg di dikk nag looloo waral nag ëllëg vidéo ba nga xam ne fa lañ dëgmal dina leeral la ca topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa